jërë ngeen jëf mbokki internet yi dal leen nag jàmm ba tey rek jëm si wàllum kooke di baa Diakhaté ginnaaw ba mu yëkkatee révélation yëkkati nag ay kàddu yu tuuma yu doy waar loor laas kay teg si kaw dal kooke di premier ministre ba di Ousmane Sonko ba procureur joxe ndigal rek ñu daat koy jàpp moom kooke di Bah Diakhaté mooy première arrestation boo xamante ne seen rek ñu ne ab opposition la ñu daat koy def mu doon ab détenu moom kooka di ba jaxate ñu daat koy téye waaye nag lasal nit ñi gën a seetlu tamit mu doon kooka baa ba jaxate ginnaaw baska arrêté waa dik def lu mel loole ñu ne nag daska posé question laaj ko nanguta wax nanguta anay preuve mu ne rek ab awakaam lay daati xaar ñu ne rek kookee nekk awakaam nag jamono ji la mu di kookee di maître El Hadji Diouf ku ne xam na diggante Ousmane Sonko ak maître El Hadji Diouf si ay projet Maître El Hadji Diouf ak Mame Mbaye Niang diggante moom ak usmaan Sonko ak Adji Sarr ak yeneen yoo xamante ne si ne rek si diggante kooku di Maître El Hadji Diouf ak ki xamante ne si moo di Ousmane Sonko yaakaar naa ñoom ñaar seen duo bëgg na su ko te loolee it daan na doon am lu bëree bëri moom ku ko demee xaaj Diouf ba mu nekk aussi pouvoir bi mën na na rek doon na def yi pexe pour lépp rek pour gàllankoor ki nga xamante ne si moo di Ousmane Sonko sab liggéeyam wala rek mu daal sa am ndam waaye nag lan sa nemmeeku mos sa am ndam. ba tey nag Ousmane Sonko nekk si pouvoir bi mu woy tamit moom it continuer fas kenn rek défendre tamit li nga xamante ne si ne jamono ji nekk si opposition bi défendre la nga xamante ne si ne moo di kiliyaanam mu doon kookee di ba jaxate ginnaaw ba mu yëkkatee tuuma ki kàddu jëmale ko si kookee di premier ministre ba di Ousmane Sonko kon nag kookee di. Euh, maître El Hadj Diouf ñu bërit parce que déggee sax ay ree la leen def ndax kookee di maître ku ne xam na ka rek engagement ba ak bëgg-bëgg ba ak détermination bi nga xamante ne si na moom lay ànd rek si ab procès bu ko amee kon nag moom mu nara a défendre ki nga xamante ne si rek moo ti euh, Pa Jaxate loolet ñu bëri xetax eh, yi ree sax la leen daati euh, def si kookee di maître El Hadj Diouf